salaamaaleykum nuyu nañ leen baax baax di leen siyaare di leen wax ne yéen ñi nga xamante ne day ñuy woo jotee li ñu wala képp ko am nañu xool ak lu mën doon mën nañoo bàyyi ci numéro 76 349 bëgg a leeraloon ndax ci combat Tapha Tine beeg bi def nag gars yi gën nañoo gis 17 17 heures gi ñuy génnaan mbër sangam day daan loolu nag dara wërlu ko lu dul maanaam dañ daan génn di ko wax bu loolu yàlla masaan def loolu am ñii seen sup ñii di bind fii di saaga di commentaire moo war a sax léegi ñu tëj wax sax ndax day dem ba dutu ko bëgg ak ñi lay nekk di la saaga ak yooyu noonu day xaw a déborder te loolu ñu obligé ne nañ ko bàyyi waaye def naa tey jii maanaam ñi nga xamante ni jot nañ ma ñi nga maa ngi ci war a waxtaan yooyu ñuy amatir ma nekk ci làmb ji seq ak ñoom daanaka ñooñu moom sa combat bu combat amee dañ ma laaj ci sama xalaat ma wax ko defe naa tey jii rek mu ante boo ma xoolee foofu ci treize heures trente nag. waaw loolu naka moom. yaa ngi jàmm Bombardier mu ante lim nekk leerul Bombardier xuma affaire yi fii ngoon dee soppeeku waaye li mu nekk nii leerul de. nga maa ngi wax noonu ko Bombardier jékkut yéen amateur tey bi ne ba ca làmb ji jege tamit woo nañ ma ma wax leen ko comme noonu neen li ma gis mooy victoire Tapha Tine ndamu Tapha Tine laa gisoon mii noonu yàlla defee ko noonu waaw. léegi nag li bëgg xam mooy Tapha moom gis maam nii muy bëri nii nii nii li wértu woon mooy dina gëj a yéex a gën a am adversaire ndax dóore ji boppam mooy loolu dóore par la mu dóore la am day dóore. képp koo xamante ne day dóori moo tax Tapha Tine fi doon normalement ay boo naa fekk yu bëri ay ñoom Modou ay ñoom Eumeu Sène loolu lépp lu ko xañ mooy bagarre bi muy def ndax keroog ndax ndax ndax keroog gis nañ ne maam li ko première signature bi li mu waxoon Bombardier dafa wax yoo xamante ni wax yoo xam ne da ngaa wax yoo xam ne daa traversé ci bopp Bombardier bi mooy gis nañ ne première signature ba dane ko alhamdulilah ba nga jëlee combat bi loolu wax la deuxième combat bu ñëwaat mu ne Bombardier juru ngay wër-wër dinaa cookiwaat ak yow muy wax yoo xamante ni maam yu Bombardier jàppale bëriwaale ko boo gisee Bombardier tey ji xeex bi la doon daw lu mus a def def na ko mooy heure bi ne pire Tapha Tine bëgg a dóor mu daw moom pour bañ xeex ak moom waaw xeex boobu la doon daw mujj gi nag moo la ko dal nag bu dee lu lu lu suus lu am la yàlla na ko saa borom la jàmm waaye li wér wóor mooy Tapha Tine moom ci kanam tuuti fi mu toll nii ma am adversaire dina gën a jafe. xanaa waa CNG combat bu ñu feej ñu def ko combat mbapat mais bu ñu ko bëggee def ko bëre nii nii nii jii ñu bëri gis nañ bu muy dugg si di dóor rakkab ji da ko calmer Ndiaye Tine di ko calmer pour nangam pour mu bàyyi dóor yi bi muy dugg si dóore moom la mbëri bëggut comme ko xam ne Bombardier xam wax ci làmb rek loo njëkk a def mooy njëkk musu bu demee nag ba Bombardier moom ñu musuy dóoram di musu ci dóori Tapha loolu moom day gën a ñàng